C'est le général Fall qui parle, effectivement. C'est lui qui parle. Général Fall moi, wax mais message que nous avons ci au fait les réunion la le général Fall di réunion ak ay haut gradé fen déjà pour tout bon militaire hein, dans les réunions de l'armée il amul tacho. dans l'armée quand le général parle tu n'as que deux choix tu es au garde vous ou bien au repos et le silence et dans le général buy wax soit tu es au garde vous Madame, je taxaw di wax troupe ils sont au garde que vous Voilà, Voilà, mu une réunion Voilà mon réunion dans ce cas tout le monde l'écoute et on applique les ordres Lolo là. donc il n'y a pas une réunion de l'armée où il y a des applaudissements Amoul. tachou, Amoun. donc loolu moi, primo li nga xam bu lolou weesoo ñu ban contexte général bi doon waxé ak bolo bi doon au fait la c'est-à-dire limi wax ni. tay la ko wax ci caserne Samba jeri Diallo gendarme c'est-à-dire les familles des gendarmes ci lan la ko conférence pour xamni ci koor la soldats gendarme au fait ñoo organiser conférence invité général bi mu ba mu ñëwee ñooñu ñoo ko wax ci wàllu insécurité bi nga xam ni seeni jëkkër yi nekk au front ak li ñuy gis ci réseaux sociaux yi dëkk bi day tàkk ak dañuy attaqué kër gendarme yeeg dafa nang nang nang ñoom ñoo ko posé question bi menaces yi ñuy jot seen jëkkër yi di ko jot menaces yi gendarme yi di jot dañuy dem kër gendarme yi di taal wala dañuy dem kër gendarme yi ciblé ay officiers ciblé ay sous-officiers yooyu yëpp gis ngeen ko jël nañ photo commissaire Fall bu bip jël ko publier ko. jël nañu le le le nu mu tudd sax le commandant du GIGN publier ay photom jël nañu ay généraux di publier seeni photo ak ay officiers ak ay sous-officiers ñooñu seeni jabar au fait ba ñu invité le général Moussa Fall seen conférence bi conférence bi tey la woon à la caserne Samba Diéry Diallo donc muy waxtaan ak jabaru soldat si ne leen na seen xel dal ñu bañ a bàyyi xel ci réseaux sociaux yi parce que fekk moom général mi ngi fi du tooñ kenn du waxal ken lo xamni manam leeru ko du sosal ken waye tamit nak di tax mu tok fi moy kullu ku jog ngir ta rew mom di nga jakarlo mom et ça loolu lañ koy fayé wel bu dé donc dañoo toxal wax bi ci contexte am primo ñaara bi menace les manifestants le général Fall n'a jamais menacé les manifestants au contraire il a menacé les brigands les fauteurs de troubles les pyromanes ñi nga xam ni taal réew mi mooy seen lay waxal ñan la doon waxal au fait waxul ak ay gradé général Fall mi ngi doon wax ak ay jabaru soldat mi doon wax ak ay jabaru gendarme ci contexte boobu la waxee ak ñoom tey la woon ci caserne Samba Djeri Diallo donc pour mu leer donc c'est pas le général Fall qui s'adresse à des hauts gradés loin s'en faut c'est pas ça donc amul dans l'armée y a pas de réunion où on applaudit amul fenn dans l'armée on dit fixe on dit silence, on dit garde-vous quand l'officier parle, ou bien on est en réunion, on écoute et on applique. Et il n'y a aucune réunion où le général Samuel a parlé de ces choses-là. Donc il, s'intéressait tout justement euh, aux, femmes, aux femmes des militaires, des gendarmes, souvent victimes de menaces, eux et leurs familles. Donc de la part des brigands et de la part des pyromanes qui, euh, qui n'ont qu'un seul souhait, brûler ce pays. Et le général s'entraînant avec la famille de ces derniers, euh, comment dirais-je, leur expliquer la situation et leur poser part, bien entendu, de la disponibilité de la gendarmerie de rétablir l'ordre et la discipline dans ce pays. Donc, lolo ce que général de wax donc lolo ce li nga xam dire. j'étais en mouvement mais il fallait que je taxaw leeral loolu mu leer ma continuer dem dox samay donc lolo moo loolu li nga expliquer en des termes très clairs donc une fois encore nous éviter de tamit partager ay informations. yo xamni ni leeruñu nañuy gëstu information yi buñ tombé piège ils créent leurs manipulations, ils nous font distribuer ces manipulations ils créent leurs mensonges, ils nous font distribuer leurs mensonges. ils créent leur intoxication ils nous font distribuer ñun ñi dañuy distribuer suñ groupe whatsapp c'est seen intoxication. lool dañ ko avons maytu c'est-à-dire que quand on parle de général quand on parle de ministre quand on parle du président de la République nous ne partageons pas bu mu dans le groupe WhatsApp nous partagez ko partagé cherchons la bonne information et tentons d'expliquer ça parce que ce ngay partagé c'est dem live Nous fa li ngay c'est live donc nous l'a clarifier comme quoi que le général Moussa Fall n'a jamais tenu de réunion avec les hauts grades de la gendarmerie c'était aujourd'hui et c'est le dimanche c'est pas un jour ouvrable il y' a pas de y' a ben ben ben urgence pour xamanteni moy tax nit ñi di génn fi dañuy donc euh, lool la bëggoon pour mu clair donc je dis ci askan bi euh, di len santal bu baax peut-être que demain on fera un live mais justement wax les rapports de l'IGE euh, nu mu tudd sax les rapports de l'IGE nekkul lo xamanteni dañ koy mettre ay sous-scellés gi non noonu les rapports de l'IGE sont disponibles euh, rapports yi bamu mu fi fii Cour des comptes sont disponibles rapport of yi sont disponibles amul ben rapport bo xam dañ koy bind ba paré diko neub nëbb amul yaanaam mi ngi daw mi ngi toog foofu seen TV di fen rek donc lool la néna mo gëna fété ndaw Ousmane Sonko moo tax Ousmane Sonko daanu feebar mom <laughs> donc ya gëna a Ousmane ndaw Ousmane Sonko ndaw donc ce qui veut dire Ousmane Sonko moom mënutuloo di di Sénégal parce qu'il est inapte donc lool lañ bëggone clarifier sante leen bu baaxa baax gërëm leen wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu